dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyantoo yéen kaay gi di réew mi ko de jen xëy du ñu xibaar naan ñu rassemblement bi coalition Yewwi Askan Wi bëgg amal tey jii ci talaate je ci Parcelles Assainies ci terrain ACAPES bu ñetti waxtu jotee préfet bu Ndakaaru daan na koy autorisé waaye nag ñu bari na ñu ne jàppante mën naa am ginnaaw nag préfet bi autorisé na li nga xam ne mooy rassemblement boobee maanaam ay jàppante moom mën naa bañ a am maanaam confrontation ñu bari njortoon nañu ko waaye nag comme préfet autorisé na ko confrontation mën naa bañ a am yéen kaay xëy bind ci njëkk na Dakar un mardi les dangers projet yéen kaay gi ne na ñi nga xam ne ñuy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom nag dañoo njortu ni ñii di waa coalition Yewwi Askan Wi dañoo bëgg dugal Sénégal ci kaw goo xam ne maara di tali yéen kaay gi de la point xëy ñu bu weesoo rassemblement bi nga ne coalition Yewwi Askan Wi bëgg nañu koo amal nag ak marche yu bari yi nga xam ne moom la ñu wax ne dañu koy def loole nag moo tax ministre bi ñu dénk wàllum ndaw ñi di Pape Malick Ndour moom nag daan ba pare nag woo ndaw ñi xam ne ñoo bokk ci APR Benno Bokk Yaakaar ngir nag a jàmmarloo ak waa coalition Askan Wi ndax Pape Malick Ndour ci journal bi de Le du ñu bàyyi ñii waa coalition Yewwi Askan Wi ñu indi ak pëccëxoo ci réew mi yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na en tout cas li bi yéeg na lool te nag bu confrontation amee maanaam bu mu leen bett yéen kaay gi di Vox Populi muy opposition bi di pouvoir bi jamono ji na kenn ku nekk ma ngi bi yéen kaay gi nee na yaa ngi mel ni a bés xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas li am ba bi coalition Yewwi Askan Wi bëgg amal tey ji sa terrain ak bu ñetti waxtu jotee la yéene kaay gi di réew ko di jeen ci xëlim ak Assane Samb nee na bi jamono ji yéeg na ba maara taali waaye nag ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi rawatina Ousmane Sonko ñoom saa sunu xëyee mbir mi nag dañu koy gën a tàngal maanaam di radical loola waaye nag li nga xam ne daal moo koy saafara a Macky Sall ma ngi bàyyi Ousmane Sonko muy jaaba jonge maanaam amnistie wul Khalifa Sall ak Karim Wade dualité bi moom diggante Ousmane Sonko Macky Sall kenn du ci man dara Assane Samb ci biir journal bi nee ñu bari ñoo ngi wax lu jëm ci wàllum guerre civile waaye ñi nga xam ne ñu waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom bëgg ñu guerre civile doxuñu timit ci wàllum guerre civile maanaam communication politique la def te ki nga xam ne mooy Macky Sall jaay doole acharnement bi nga xam ne Macky loolee rek ngay dégg day tax sax yeneen opposants yi ñu daal leen di fàtte yéen i kaay gi de enquête bàyyi mbir moomee wax ci dund gi nga xam ne jamono ji dafa cher ba maara détaal yi neexul ba neexul waaye nag dund gi cher na dund gi cher na lool te nag jamono ji bu dee am na benn laaj boo xam ne maanaam mënuñu ko laaj mooy ndax nguur gi jamono ji dafa tëlee ci lu jëm ci wàllum wàññi njëg yi yéen i kaay gi di Sud Quotidien mel na luy tontu laaj boobee nee na nguur gi ba mu lajjee ci lu jëm ci wàllum wàññi dund gi yàgg na ndax lu jëm ci wàllum transport bi jamono ji njëg yi dafa yokk mën na la dund gaa ngi nii njëg yaa ngi yokk ba maara détaal yi état bu Sénégal Sénégal sa xeex bi mu ko xeex jamono ji teg na ay ngànnaayam ay armam ca suufa ñi nga xam ne nag ñooy commerçant yi ak acteur transport yi jamono ji ñoo ngi def lu leen neex gouvernement bu Sénégal daf ci tëlee askanu Sénégal ñoom ñoo ci sonn ba maara détaal yi yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy ñu xibaar naan ñu waa kër Ousmane Sonko di waa Pastef ñoom nag am na ñeenti laaj yoo xam ne laaj nañu ko Macky Sall ba pare nag sàkku mu andi leen boobee boo xam ne moo nekk ci bopp nervi yooyee ab laaj la beneen laaj bi nag mooy Macky Sall sa doom jii di Amadou Sall Grand Yoff dañ ko faa gis ci guddik juróom-ñaari fan ci weeru mars atum ci ay deux heures du matin muy recruter ay nervi loolee yaa ko ko sant wala yaayam moo ko ko sant ab laaj la beneen laaj bi nag mooy kañ la milice yii nervi yii di jeex ci réew mi kañ lañ leen fii jëlee ndax ñoom jàpp nañu nag Sénégal bu yëngoo wala guerre civile am ti li nga xam moo koy mooy ñii nga xam ne nag ay nervi lañu di ay milice yoo xam ne nguur gi la nañuy ñu Pastef ñoom nag nee nañu bu guerre civile amee ci réew mi milice yi ne maanaam yi nga xam ne ñoom la ñuy gis ci wetu takk der yi ñoom ko fii indi yéen a kaay gi da la témoin nee na nguur leen di tuumaale lu jëm ci wàllum recruter ay nervi yéen a kaay gi du source wa nee Sonko waaye bëri na ay ministres yu nekk bi mën na la gis nga a tontu Ousmane Sonko am yoo xam ne turu Ousmane Sonko rek jamono ji duñu ko tudd mën na la Ousmane Sonko ngi song Macky Sall suba pataaral la noppi loolee nag lan moo ko waral la ndax dañoo jàpp ne Ousmane Sonko dafay jot ci réew ko defee boo liggéey ñu mën a transhumé wala nag dañoo def ay njombe ki giraawaal ay tooxi yoo xam ne moom la ñuy bañ ko ko sul yéen kay gi de le quotidien yor yora xëy dañu xibaar nañu avocat yi Sonko yi jamono ci mer nañu ba maara de Italie mer ñu dénk wàllum yoon ci moom nag ci émission Sud FM dafa wax ne Ousmane Sonko moo ko wax lu dul dëgg moo ko diffamé ñi nga xam ne boo xam ne attee guñu ko ministre bi nag bëgg koo tuumal ne moo def wala deful ana présomption d'innocence ana neutralité Ousmane Sonko kenn attee gu ko loolee moo naqari avocat yi Ousmane Sonko yi yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu élection représentativité syndicat jàngalekat yi am na juróom-ñaari syndicat yoo xam ne jamono ji ñoo génn ñoom ñooy ñi ëpp doole yéen kaay gi di le quotidien nee na dàmbooj bu kisam sa authentique jamono ji dugg na cour des grands yéen kaay gi di ñu xëy fekk fa ipongaar yi daan nay wax ne rëg-rëg ci boppam mënut a xeex te te moytu ay dóora ipongaare ci sunu làmb nee na rëg-rëg dafa war a xam ne maanaam mbappat bokkut ak arène